auditeurs wala ak suñu suñu internautes yi. waaw bon xam nga gars yi moom léegi waxatuñu waxu projet on parle de référentiel. Mhm. parce que projet moom pour campagne électorale la. maintenant nag booy campagne dafa am projet boo xam moom ngay moom ngay yor moom ngay campagner boo demee ba falu dootoo waxu projet mais référentiel maanaam da ngay am un projet de société. bu nga xamante ni fa muy jógee mooy ci askan wi maanaam yow li nga indi ak li askan wi di indi parce que booy dem campagne électorale yow li nga nam defal askan wi ngay yóbbu maintenant nag boo demee ci benn localité da ngay jàkkaarloog ñoo xamante ni par rapport ak yow la nga leen bëgg a defal ak la nga leen yéene ñoom itam am nañ contribution bu ñu war a def maintenant tu prends note maintenant l' ensemble des ya ngay collecté au niveau national ak international boo demee moom ngay boo gañee moom ngay jëmmal def ko référentiel bi nga xamante ni sénégalais yépp en réalité dañ ci war a gis seen bopp dans plusieurs domaines que ce soit muy agriculture bi muy santé bi ak ci domaine yu mu mën a doon donc loolu nag le gouvernement bi fësal démb ni fii lañ bëgg a namm yóbbu Sénégal di d'ici deux mille vingt cinq deux mille cinquante du moins maanaam dans vingt cinq ans bëgg nañ Sénégal am xar xar kanam bu bees ci domaine yu bëri ci santé bi ci économique beeg yooyu yëpp parce boo xoolee am na ay quatre axes yoo xamante ni yu majeur yoo xam décliné nañ ko par rapport ak seen vision bëgg nañ am économie bu gën a prospère bëgg nañ am santé bu gën a ñoŋ bëgg nañ am agriculture boo xamante ni dana gën a am dimension bëgg nañ am industrialisation taux de chômage beeg yooyu yëpp wane nañ naka lañ ko bëgg a régler en réalité parce que c'est un très grand projet boo xamante ni pour définir ko et pour gën a arrondir les angles ça ça nous prendre beaucoup de temps mais loolu mooy axe majeur yi référentiel la bu Sénégal yëpp doon xaar. maintenant nag attendons de voir la nga xamante ni moom lañ fësal ci plateforme boobu ñu yor tey nga xam mooy référentiel bi ndax résultat escompté ya nga xam Sénégal ñu ngi ko xaar daañ ko mën a matal fii ak deux mille vingt cinq bi nga xamante ne parce que gouvernement yi ñëw yëpp ku si nekk amoon nga un plan à l'horizon nangam le président de la République ci PSE bi mu yor amoon na un PSE à l'horizon deux mille trente cinq si je ne li mu yéene woon Sénégal def ko si deux mille trente cinq maintenant si référentiel boobu nga tënk ci at yooyu yëpp dafa am ay axes prioritaires dafa am loo xamante ni fii ak cinq wala fii ak un an loolu war nga ko jëmmal war nga ko réaliser mais daal dans la globalité lañu ñu namm ak la ñu yéene pour d'ici deux mille deux mille deux mille cinquante la ñu yéene askanu Sénégal loolu la ñu fësal jàpp naa ne nag attendons de voir ndax langa nga xamante wax nañ ko dana dana danañ ko mën a def. alors la sortie du président Macky Sall noo ko jàngatee. c'est une sortie du moins tout à fait normal parce que l'actuel première ministre waxoon naa ko kii détient toute l'administration mu di son Sonko moo génne ay accusations wax ni le régime du président Macky Sall waxuñu woon dëgg ci par rapport ak nañu doon liggéeye ci lu ñeel wàllum chiffre dañu doon falsifier ay chiffres ci lu ñeel wàllum dette publique bi ak dette centrale bi ci lu ñeel également euh, euh, kii bi waaye nu mu tuddati ci lu mel déficit budgétaire bi et cetera tout ça chiffres yi ñu ci annoncé yëpp boo demee c'est des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité loolu nag lu taxaw ñu def ko moo doon pour attirer l'attention des investisseurs pour jox Sénégal benn santé économique bu bu bu bu ñoñ boo xamante ni ña nga xamante ni ñoom lañ seqal ci wàllum comme muy les investis les les institutions internationales ak yooyu yëpp pour ñu di copter seen ay financement loolu Ousmane Sonko wax mu dee des accusations très graves te bi mu koy wax des responsabilités ñi nga xam nekkoon nañ ay ministre des finances ñooñu ba léegi kenn déggu leen mais le président de la république démb moom itam bi mu doon jàkkaarloog ak ay confrères allemands mu di benn chaine chaîne Bloomberg ci la yëkkati ay xibaar ni moom Sénégal bàyyi na ko ci ci ci ci bàyyi bu bu mucc ayib maanaam indicateur yëpp ci niveau bu vert la leen bàyyi maanaam ça veut dire que bàyyi na fi benn santé économique bu baax. nee na nag mu ngi jéggalu mu ngi regretté aussi propos yi nga xamante ni Ousmane Sonko tëngeen na ko surtout nag ci endettement bi parce que xamale na ne effectivement amul réew ci àdduna boo xam ne soxlawul ay dette ak soxlawul bor pour liggéey ci pour mën a financer ses investissements man jàpp naa ni génn la bu jaa bu jaadu maintenant nag ñaari autorité ñoo wax ki wax njëkkoon a wax c'est l'actuel premier ministre la mu wax kenn mënu ko remettre en cause parce que c'est lui qui détient toute l'administration qui a toutes les informations le président Macky bi fi nekkoon itam wax na moom tamit il était là amoon na toutes les informations toutes les données maintenant attendons de voir fan la dëgg bi féete jàpp naa nag les juridictions expérimentées en la matière dinañ ci wax d'autant plus que FMI wax na ci nee na accompagner na logique bu Sénégal ci bonne gouvernance ak transparence bi nga xamante ni moom la woote comme nag ñaari autorité ñoo wax attendons de voir parce que am na ñoo xamante ni loolu mooy seen seen wàll loolu mooy seen cër au plan international pour saytu lépp lu nga xamante ni dafay ñeel wàllum chiffre parce que FMI bañu ko ba di bu fekkee li Sonko wax dëgg la mën loolu ay sanctions mën na ci am yu jóge ci ñi nga xamante ni c'est des responsables parce que def na ko ay réew ma gis ko lu ci mel ni Argentine y a un ancien ministre argentin boo xamante ni il a été sanctionné parce que tout simplement dafa falsifier ay données yoo xamante ni pour tromper la religion des institutions économiques boo demee Chine gi y a certaines provinces yoo xamante ni FMI ak yenn institutions yi dañ leen di sanctionné parce que tout simplement il c'est des provinces yi nga xam dañuy falsifier ay données économiques kon sorti président Macky Sall ça s'inscrit ngi jëm des des perspectives électorales bu Sonko lii président Macky Sall addu aussi dafay mel ni la tubaab bi wax ki na di rien consent kon lañ ko waxal moom moo ko def voilà merci beaucoup Serigne alors euh, euh, la sortie du pré du de l'ancien président ci wedd gi mu wedd yëpp totalement faux bi man moo ma ci jaaxal totalement faux sa veut dire que il rejette tout ce que le premier ministre a dit déjà Omar laa bëgg a laaj ba xam euh, Ousmane Sonko la dernière fois jour bu muy accusé euh, Macky Sall ba xam chiffre yooyu si euh, pré rapport wala rapport IGF lu ko jëlee wala ce sont ses propres chiffres ah, à lui xam nga état bi état bi dañ leen ne en fait yéen boo leen ñëwee état bu mënti ñëw boo ñëwee da nga tu as trois mois boo xam da nga ko war a def audit fépp ah bépp état buy soog a ñëw quoi pour xam yow lan nga lan nga kii léegi nag ñoom xaw nañu tardé sax si audit boobu léegi audit boobu boo ko defee après cour des comptes moo ko war a certifié moo taxoon ay Birahim Seck ak yooyu naan pourquoi waru ñoo même Macky Sall wax na ko ah dafa waroon xaar ba ñu certifié ak yooyu quoi. Mm-hmm. d'accord Fatima kon jàpp naa ne euh, le président Macky Sall wedduwul Ousmane Sonko mais peut-être chiffres yi nga xam ne ñi doon bi n'est-ce pas kon weddiwul Ousmane Sonko bi la la le premier le premier ministre am na si toute notion avant. muy génn amu la ay chiffres am waaw ay chiffres. Ousmane Sonko mais newul la galaas la bu génne frigo bi. waaw mais moom newul moom en ah, mooy dem defi audit yooyu. waaw waxam la. newul Ousmane Sonko moo koy def parce que am na ay organes yoo xam ne. audit bi génneegul dara. mais lui il a une idée de de peut-être. moom moom il a déjà fait xam nga dañ ne maanaam c'est très clair ñoom ils ont trois mois pour faire des audits. te audit boobu neewul yow yaa koy def yaay premier ministre da koy mm-hmm. dénk ñi ko war a def léegi ñoom bu ñu ko defee trois mois yooyu ba pare mm-hmm. léegi nag nga jox cour des comptes mu certifié ko quoi mm-hmm. day mel ni day mel ni ñu ne la da nga war a tabax batiment boo ko tabaxee am na benn structure boo xam ne waa ñëw xool ndax batiment bi baax na wala affaire yi léegi cour des comptes loolu la rek euh, mën na ñëw sax ne àddoogu si mais quand même audit bi def nañ ko kon président Macky Sall weddiwul ay parole bi audit bi la weddi. non non Ousmane Sonko la weddi nee na ko réew mi. il faut la comprendre rek mais audit bi la weddi li on peut la bàyyi ko mu kii c'est exprimation ni de yow bàyyi la weddi te jàpp naa légitime défense la quand parce que ñu fàttali ni.